bu dee journaliste sénégalais nga xamal ni Macky Sall respecté wu njiitu réew mi li ko gënal mooy Samba Alar dem ci journaliste yi nga xam ne ñoo ne bitim réew ngir waxtaan ak ñoom xoolal sax àjjuma ci ngoon moo nàmm tànkam sol dàllam dem ca BFM TV ca France ca seen i biiru studio ba mu faloo ba léegi toll na ci fukki at musta sol dàllam dugg ci benn télé mbaa rajo fii ci réew mi moom Macky Sall. am na ñuy laaj nag ba xam journaliste sénégalais yi dinañ bind bataaxal ngir sàkkoo waxtaan ak njiitu réew mi dem leen palais présidentiel di ngeen fa fekk ay demandes yu dul jeex ñi ko yónnee sax jotuñu këyit bu leen wan ni jot nañ seen këyit kenn leen tontu. ana ndaje bi nga xam ni 31 décembre la ñu waxoon ni Macky Sall da koy seq ak journaliste yi waxtaan bii weesu amaluñ ko ñu ne dañuy bàyyi ba élection locale yi weesu élection ya jeex na ñu ngi soobu ci yeneen élection te defuñu ko ndaje amul kenn waxatu ci lu ci jëm. Macky Sall ak ñi mu àndal respecté wuñ ñu respecté wuñ journaliste yi président Sénégal kay fan ngay xamee ne ñàkkal na fayda journaliste Sénégal ba noppi. du wax ak ñoom tubaab yi lay waxal li ci gën a garaaw nag mooy mu jox interview benn waay joo xam ne moom la ñuy wax influenceur tudd Kaliphone nekk ci internet bi saagakat bu mag boo xam ni moom mii Macky Sall amul xeetu saaga bu mu ko saagawul foo saaga gën a ñaaw saaga na ko Macky sàll mu dem France ànd ak waa ji di lëngoog moom di waxtaan ak moom ba koy defal interview te moo ne Macky Sall mii bu ngeen seetloo saa yi wax ci réseaux sociaux yi ne li ci am jaaduwul saaga yeeg xaste yi jaaduwul muy lëngoog saagakat boobu moo tax lii yoon fi ñu toll nii mooy ginnaaw moom ki ko doon saaga mi ngi lëngoog moom député Abdou Bara Dolly Mbacké dañ ko war a génne ci koso bi looloo jaadu. ca loola ba tey gis ngeen communiqué bi ministère de la justice génne keroog ne way moom moo wax procureur mu jàppalu kii di Bara Dolly jëlee fii nag def ko coupe di ko yëkkati ca kaw est-ce que ministre de la justice soxla